ki xam ni moom rek moo mën a maye di sunu borom tabaraka wa sunu réew mi wax nu ni pétrole am na wax nu ni gaz am na yooyu yëpp ak yi fi am yëpp ñaanu mag ñu baax di la nuy ñaan yal na yàlla def jàmm ci réew mi nuy ñaan it wax ci rajo wala ñuy wax ci télévision walla ñuy bind ci journaux yi nan wax lu xam ne tapé xol yi pour ñepp nekk ben di ñaan ci at bi nuy dugg yalla doon atu mbarké yalla bett lu ci xéewal yu xam ne fooguru ko woon sax nuy ñaan ki jiite réew mi di le président de la république Macky Sall le président de l'espoir le gardien de la constitution comme j'ai l'habitude de lui dire na gën a loxom loxoom na woote waat élection kañ gagné amul contestation ni à la cour d'appel ni à la cour suprême mais woo mu woote dialogue national na ci continuer bu ko ci kenn dindi jëf ji mu jëf bërki démb dem julli ci jumaa ju ji ak sang bu tedd bi sëñ Muntaxa mi xam ni moo doonu sëñ Basiru doonu Xaadimu Rasuul bëgg dem ci otoom ni déedéet naa fab sama ab Ablaye Wade dugal ko sama oto motaar yi dardu mu yóbbu ko ba këram

mais sur l'essentiel nous sommes nous d'ailleurs pour l'intérêt de la nation sénégalaise faut dire, kilifa diine yi surtout Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour sama doomu de nekk tey xalif général Tijani ak njabootu Cheikh Sangaba vous faire. Malick yëpp di leen ñaanal Jam, ba a faire. te de position yi ci réew mi ñoom ñëpp noo ngi leen di ñaanal jàmm li nu bëgg daal ci réew mi mooy jàmm rek ndax réew mu amul jàmm ci dëgg-dëgg amul dara te nu sant yàlla julli ci Rasulullaahi bi ñi tuddoon Afrique occidentale française te nu bokkoon ci ku ci ne ca réew ma nga dëkk am nga problème mais Sénégal amul benn problème loolu nag jar samt yàlla xam ne ñaanu mag ñi la